ak ay caaxaan nii lu doy waar la ndax boo xoolee dëkk yu bëri dañoo tëj seen i réew tëj seeni i frontière te nag loolu ñu naan loxoy kajoor day weesaloo da ngay jël fii yóbbu fee jël fii yóbbu fële dëkk yi mën a dox mais lii baaxul nan ñaan yàlla rek mu gaaw jeex mais lu bon la ci àdduna ban message ban message ngay sànni ki nga xam ne mooy suñu njiit di euh, nekk ci bopp réew bi di président de la république ci loolu nga wax noonu tëjuñu ko mu jëm ci tëj frontière yi waaw dama koy encouragé ndax nit la koo xam ne ku bëgg réew la nit la koo xam ne ku fonk doomu aadama la ku gëm boppam la di ko encouragé ne ko lii dafu ko bëgg ko xalaatu ko mais lu yàlla dogal la kenn mënu ci dara dañ koy gën a encouragé di ko wax ne ñi ngi ci ginnaawam di ko dooleel ñi ngi ci ginnaawam di ko jàppale message la boo xam ne lii ku nekk mënoon na la dal réew mu ne mu dal ko dañ koy encouragé ñaanal ko yàlla bu ci am defet ñaanal ko lépp loo xam ne jiim na ko ci yàlla matale ko ñu ngi koy encouragé bu baax a baax. lan ngay sànni euh, ak lu làmb surtout ma support ñi nga xam ne teew nañ fi tey si ñaari camp yi. waa Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bu kii amee jàmm rek kii am na jàmm bu ko amee naxar ñëpp am na naqar kon donc yàlla nañu yàlla boole defal ñu jàmm te jubalañu boole xol yi te xam ne suñu réew mi ñoo ko moom bu nu ko kenn yàqal. nañu yàlla gën a jàppale gën ñu suturaal. kii mooy mbay gu yu ñu bari ràññee nañ ko ci arène bi mbay na nga def. waaw père maa lay fay di ko sant yàlla julli ci yonent bi a ah, gërëm sama ñaari waajur. mais mbay euh, dafa mel ni euh, depuis un bon moment gisatuñ la ci combat yi ah yan déggatu la daal lu waral lool. non dama am combat rek ne sama rok di ko waaj maa ngi maam Balla kese loolu la rek mais du dara quoi. loolu kañ la. loolu amagul date Assane moo ko tëgg ko tëgg. waaw leen date bi non yàkkamti naa bu ma sañoon bëre suba suba mais dégg naa ñu ne président bi xaw ma arrêté na làmb ji à partir tey. mais xam nga li fi jaar la yow xam nga. li fi jaar ñun dara daluñu ñun ñu ngi ci jàmm di sant yàlla feebar bi ba léegi gars yi dañ koy dégg doom gisaguut kenn ku mu dal sa bët ak bët yi wax rek mais mënoon nañ bàyyi sax làmb suba ji ak mooy lool. kon yow da nga jàpp ni li ñuy wax ni gëmoo ni corona am na. noo gëwuma xool moom wax dëgg fa yàlla fii moom da ngay sibiru sax ñu bëgg naan corona la dal ah tamit xanaa kay. mais mbay mbay mbay bu ñaan yàlla mu dal la mais corona am na ci dëkk bi mu dal ma ci àdduna am corona yàlla mu dal benn sénégalais corona am na ci dëkk bi dégguma ko gisuma ko mu daal yow gëmoo ko quoi gëwuma ko bu ma ko gisoon daal wala ma gis ko jaaraan wala ma gis ko mu ray ma gëm ko mais gisuma ko dégguma ko waaw mooy lool euh, tey euh, ginnaaw combat bi ngay waajal nii ak euh, Mame Balla ta leen dat yaa ngi ci entraînement yi maa ngi ci entraînement yi boo ma xoolee xam na maa ci entraînement yi pare naa suba suba pare naa mais Mbaye est-ce que yaa ngi guy gi yaa ngi moom man ñi ma entraînement la ma ñëpp di waxal waxaluñ ma leneen Mbaye. ban heure ngay jóg ban heure damay jóg 5 heures du matin dem géej ñëw nelawaat ba 11 heures ma yeewu dem saal su ma jógee saal ñëw añ tëdd nelaw ba 5 ma dem contact trois séances. dara. Ah. liggéey ko am nga yaakaar ne Mame bu ngeen dajee daal du yomb Mame Balla ci àdduna bu ñu dajee fii ba fii ba du daan du niil fu ñu suuflee ma daan ko Pikine laa la wax arrêt bu ñu dem mën naa daan fa mu dëkk arrêt bu ñu taxaw ma daan ko mu ñu avancé waat ma daanaat mënu dara. léegi euh, combat yi nga xam moo ñu feen di tey diggante Bébé Diène ak euh, écrit ak ki nga xam mooy Fourier bu écrit bala euh, Grand Yoff mbooloo ban jàngat nga siy def. ah jàngal bi ma ciy def bébé jël sunu rakk la sunu xarit la ñoo bokk Medina bi maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam lu seddu guy loolu laa ci am lu may wax te bu ma sañoon it yàlla may ko ndam te yalla na ko yàlla may ndam sunu rakk la booy bu joxe cër la quoi waaw mooy loolu. voilà ba tey ñu ngi fii ci arène nationale euh, nekk euh, jëm ci combat bi nga xam ne rek moo dox diggante bébé jën bu écrit Soumbédioune ak ki nga xam ne mooy Fourrière bu Grand Yoff mbooloo ñu jàkkaarloog suñu papa nga xam ni kenn mënut a tudd làmb ji te tuddoo ci li nga xam ne rek moo jëm ci reporteru làmb muy suñu papa Ibou Gary yi papa tey ban analyse nga mën a def avant combat bi ci ñaari mbër yi nga xam ni ñoo war a sëgg. analyse bi may jëkk a def mooy réeroo amul ñàkk a waxtaan am te adduna nul n'est éternel ndombo goo yore balaa moo balaa nga koo jeexal keneen for ko euh, ñuy ñaan yàlla juboo dañu war a juboo àdduna amul solo euh, diggante CNG démembrement de l'État la loolu ñëpp xam nañ ko digganteem ak arbitre yi aussi c'est la même famille donc bu réer amee yaakaar naa ne mën nañ toog waxtaan mais ñëg ku ko def a kenn mënulaa jéggi bon buñ ne diw baax na baax na baax ay ati at mënuñu xëy na bon na xaj na Alioune Sarr bi muy jël làmb ji boobu am na làmb fu mu tollu boo defaree nag ñaari ba mu baax yàqu-yàqu day daf la cay fekkaat moo tax ñu ngi koy ñaan mu daas xolam indi xelam xam na ku jiitu foog sa ginnaaw feeñ comme que yàlla moom la jiital na gën a mun rek loolu dal moo moo gën a rafet daal. Euh, tey nag euh, maanaam li jëm ci combat bi ginnaaw bi nga waxee li jëm ci arbitre yi euh, di ak CNG bi. tey lan nga mën a jàngate combat bi nga xam ni dina dox ci diggante ñaari ndaw yi nga xam ni am nañu yaakaar lool ci areenu làmb yaakaar boobu moo tax tey ku ci daan da ngay déclassé muy diggante ki nga xam ne mooy fourrière bu Grand Yoff ànd ak mbooloo ak bébé Diène mi nga xam ne mooy doomu Diène mooy do mooy rakk ci Diène Kaïré Diène Kaïré Kaïré seen baay donc c'est une famille lutteur ku daan tey déclassé nga yéeg nga ci kaw moo tax combat bi am solo. lan ngay dénk ñi nga xam ne ñooy axlu làmb ak jafe-jafe yi nga xam ne jot nañ ko dajeel ci ci ci saison bi. ba nga nee làmb rek dañuy làmbatu donc foog boo dajee sens la boo dajul wuti leneen làmb ak coow ñoo ànd léegi sax coow amatul làmb nit ñee koy yokk rek c'est que lenn nag moo leen jaaxal. lan wax nañ leen ne Alioune Sarr nee na y a 21 promoteurs. 21 promoteurs mooy Gaston ça fait 20 mooy Assis Ndiaye ça fait 19 noonu ngay wàcc di wàcc ba mu des tuuti tuuti boobu su des nag mooy suñu mbokk bawol bawol yi bawol bawol bu jógee kaw ga ñëw ndakaaru yaa koy nax mais bu fu yàggee moo lay nax donc mbër yi nga xam ne ñoom la ñuy wax les VIP nañu xam ne bawol bawol lañ dajel dañuy wut bawol bawol yi di wut doo dégg mukk benn bawol bawol bu fi fay cent millions kon nag nañu góorgóorlu parce que buñ ko bu amoon barem fii yëpp duñ fi yegsi mais amul barem dañu bàyyi woon formel bi dem kon nag luñ ci góobee nañ ko gar mbër yu mag yi ñoo war a revenir jéem a seet ni ñuy amee waat ay sponsor ñu bëree parce que sponsor yu jógu fi tey yaa ngi gis Sénat assurance gis Miss ah ak yeneen ak yeneen banderole yaa ngi kon am nañ sponsor mais la ñëwoon nag lu doy moo fi amatul loolu rek la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 en temps réel